asalaamaaleykum suñ mbokk téléspectateurs yi ñu topp si seen émission la voix du campus te ñoo ngi am mbégte ak contentement di fi dalal ñaari invité yoo xamante ni carrément ay étudiants leen am jaar-jaar si réew mi di commencé si ki nga xamante ni moom mooy Mamadou Sadji Mara ak teg ki nga xamante ni moom mooy Cheikhou Diallo ànd si ak suñ chroniqueur bi ñuy àndal saa su nekk di Cheikhou Diallo Mara ñoo ngi lay bàyyi nga nuyoo ci biir Mader TV nga présenté wale oui mbokk yi eh, vraiment maa ngi leen di nuyu Ali Thiam di nuyu waa Mader TV di leen di jaajëfal ak invité yu fi nekk moom frère et samu fee vraiment ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui avec vous mm-hmm. donc euh, je vous remercie. ñoo Moussa bokk na Mamadou Bokna, c'est l'un des membres fondateurs du mouvement Fouta Tampi daf ay activités yu bëri bokk universitaire ay organisations universitaires yu Moussa nous ngi lay bàyyi nga présenté wu ci biir TV sur émission La Voix du Campus. voilà merci beaucoup monsieur monsieur mm-hmm. Thiam. Mm-hmm. ñu ngi leen di nuyu di nuyu téléspectateurs yi di le chroniqueur Cheikhou Diallo mais aussi mon co-débatteur monsieur Sarr mm-hmm. de merci pour l'invitation voilà. ñuy nuyu ñëpp daal insha allah jërëjëf Cheikhou ñu ngi lay bàyyi nga nuyoo. waaw maa ngi leen di nuyu bu a baax di kontaan tamit li ngeen ñëw fii tey amul jot yombul mais je pense bien que le thème a débattre aussi le mérite. en tout cas on vous félicite et on vous remercie vraiment. jërëjëf bi la ñuy dugg si thème di si waxtaanee. dañoo nekk si benn réew moo xamante ni moo ngi tudd Sénégal. moo am ay valeurs yoo xamante ni ñoo ko fondé. te valeur yooyu su taxawee dafa dellu ci li nga xamante ni moom mooy diine te ñu ko fi taxawal tey nekkal ko fi <coughs> kuñ ci tudd sa waajur wala sa maam rek da ngay xam ne kii dooneel boo xam ne la ñun ñëpp ñoo ko moom mm-hmm. la xalif général des mourides ñëw fi Dakar

Euh, nous sommes dans un pays euh, comme ni ñu koy faral di wax ñun dañu nek ci dëkk bo xamantene dañu am sens. ñu mm-hmm. manam l'islam dafa am ci biir Sénégal. Mm-hmm. té lolu gis nañ ko ci suñuy mag ñi. Mm-hmm. maanaam suñuy kilifa yoo xamante ne fii la ñu nekk. boo ci yeneen réew yi ñom sax dañuy naw. nga xol mission yi kilifa diiné di def ku mel Serigne Touba. je pense que liguey bu ma liggéeyal fii suñu borom. donc je pense que ñun fekkee wuñ ko mais xam nañ ci lu bari donc Serigne Touba je pense que il a tout fait dafa def mission qui qui pour suñu borom. donc euh, ci Afrique ou la si Sénégal rek. Mhm. donc bu liggéey fi liggéey bu am important donc euh, euh, c'est Al Muntaha donc bu ñëwee war a dugg Dakar dañ koy xoolee comme Serigne Touba comme gars yi lu ñu koy wax. dootu ko Serigne Touba moom moo ne su ma doonee Muntaxa dinaa ñëwaat. dinaa ñëwaat Dakar comme Serigne Touba al Muntaxa bii ñëw Dakar dañ koy xoolee comme Serigne Touba bu jógee foofu noonu ñëw fii Dakar. Mhm. comme Serigne al Muntaxa mooy Serigne Touba. Mhm. donc euh, te ñoom seen nekkit ci réew bi dafa important. Mhm. à tout moment que ñu toll benn moment bu très maanaam benn moment boo xamante ne bu metti ci réew mi ba ñëpp tiit ñoom bu ñu waxee rek yàlla da ciy def ndox bu sedd.

kilifa gi noo jàngatee ñëwam ci Dakar ak saa su nekk jàmm ju fii indi ak jàmm ji nga xamante ni moom la fi bàyyi. merci merci merci beaucoup monsieur ak ci guddi ñu war jëm tamit loo war neen ko def bàyyi ba xalifa bi dam ñu war a def leneen. Euh, merci beaucoup monsieur Thiam. Euh, maa ngi rafetlu euh, question bi di naan aussi ñun Sénégal. Mhm. suñu jàmm walla suñu teraanga premier mooy d'abord dañoo am benn sens mooy sens mooy diine. Mhm. Eh, diine nag dafa dafa yaatu mais mu am ay apport yu bëri yu mu dugal suñu société mhm. au-delà de l'islam vous avez aussi de l'autre côté d'autres aussi mhm. d'autres religions yeneen religions mhm. mais ñu euh, ñu gis ne par exemple parmi les religions y a tey benn facteur boo xamante ne ñu ngi ko ciy dugal toujours mooy le climat social euh, ku gis euh, Sénégal fu mu toll wala adduna bi d'abord fu mu toll maanaam ci wàllu crise de valeur mm. ci wàllu crise de société mm. ci wàllu instabilité ngis tey euh, dans un pays nga am ci des hommes yoo xamante wala des personnes morales yoo xamante fu ñu génn wax wala fu ñu génn jëf nit ñi lépp lépp lu ñu jàppoon wala lépp luñ ñu kiwoon Euh, dañ koy bàyyi topp ci ndigalam wéy ci ndigalam loolu dafa am solo ci réew mm-hmm. te yaakaar naa ñun réew loolu bokk na ci loo xamante ni nekk na facteur de stabilité de la société sénégalaise boo xamante ñun dañoo war a continuer di ko cultiver mm-hmm. dañoo war a continuer di ko sauvegarder mais aussi dañoo war a continuer surtout di ko sàmm jërëjëf dañ ko war a sauvegarder sàmm ko cultiver ko mm-hmm. seexu noo jàngatee ñëw sëriñ bi fi nga xamante ni moom mooy dakaar merci Ali di di rek encore. parce que le Sénégal est différent des autres pays. parce que le Sénégal dafa am lu spécial lo xamné ne. yeneen réew yi amuñ ko. Sénégal rek ngay ñëw. on te parle du xalif général. des Mourid Khalid général des Tidianes. ñu lay wax Serigne Dakar. c'est-à-dire ñooñu noonu c'est des amortisseurs c'est des soupapes. quand il y a problème. on passe directement à ces gens-là. te am nañ majorité bu nek seen gannaaw suñu waxé nit ñi dañ leen di dégg te mu nekk ay valeur mhm. waxee wuñ si si si dara loo xam ne nii su dul dañ koy teg si diine mhm. dañ koy teg si éthique dañ koy teg si moral. Mhm. mu nekk enseignement yoo xam ne nii pour moi, c'est à préniser, parce que enseignement yooyu c' ce qui fait les amortissements mais également les soupapes d'une nation parce que problème man ñàkk nit ñi bu cohabiter ensemble avec problème day am mais il faut qu'il y ait des amortisseurs il faut qu'il y ait

li ma doon wax rek mooy enseignement religion bi mooy valeur yi nga xam ne tey xalif yooyu def nañ ko fii mhm. il est temps ñu inculquer ko les enfants ñu yóbbu ko si école bi mhm. nit ñi di jàng enseignement yooyu di ko xam mhm. pour vraiment yenn violence yi yenn crise de valeur yi ñu mën ko régler jërëjëf euh, dañuy ba dugaat ci loolu ba léegi di continuer ki nga xamante ni suba lay ñëw di Cheikh Mahi Ibrahima Niass di doomu Cheikh Ibrahim dem Soudan nga xamante ni kër bu doon ñaar fukki at ONU jaar fa mënul ko rek ko réglé IA jub mënul ko réglé mu dem Soudan ñëpp d' teg seen arme mu dóor doomi Sénégal après loolu noo ko jàngatee ba tey jii si cadre suñu xalif généraux seen liggéey la. effectivement comme li nga wax rek. Mhm. man mooy lu ma la wax sànq rek. Mhm. nous avons eu la chance mhm. ñun chance la ñu am ci wàllu lislaam donc euh, boo waxee Afrique de l'Ouest surtout Afrique Sénégal du dara ci wàllu lislaam maanaam kilifa yooyu noonu yëpp ku nekk am na mission bi ngay dox si àdduna donc euh, Baye Niass. mission boobu mu don dafa ci Afrique tay mu ngi koy wane ci domam yi donc ñoo ñëw diko confirmer parce que Baye Niass du Baye Niass Sénégal c'est le Baye Niass de l'Afrique partout bo démé Nigéria da ngay foog ne Baye Niass foofu lañ ko gëna bëgg donc tey ni nii euh, xalifa bi dafa dem di dafa ñëw di confirmer la mission de Baye Niass dans le monde entier donc il l'a confirmé. par rapport par rapport à un climat social bo xamante ne dal na si jàmm. parce que lool mo gën a am important. la paix Moussa noo jàngatee kon. li Cheikh Mahi Ibrahima lu mu def par rapport à l'unité africaine ak lan la si mën a yóbbu. merci euh, ñun nag euh, maanaam suñu wàllu analyse. Mhm. Euh, maanaam ci xalif bi sëñ Mahi ñas mhm. lu mu def. Mhm. ñun nag suñu analyse dañuy comprendre wala dañuy jéem a wane ne maanaam un problème ou bien un fait social. pour nga comprendre il faut d'abord connaître les sous-basements de cette société et te loolu apport la bu mag te loolu maanaam. Baye Niass nako déjà bien avant C'est pas parce que ONU dem na fa man na régler le problème social ou bien c'est pas euh Union africaine dem fa man ko régler parce qu'il y' a des soubassements société. dafa te société boobu dafa am lo xam ne si lañ tënku. voilà ci lañ moom nit ki lañ yaakaar Dominique nit fa gëm-gëm boobu société bo gis dafa am gem gem dafa am ay valeur mm-hmm. te valeur yoy nag ñun dañoo am sens Baye Niass euh, na fofu nonu jël population bi gëm leen dara. Mm-hmm. donc tay un xalif volant qui, que le Baye d'un dem vous vous fa je pense que quand même euh, parce que l'autre, tey la mission unificatrice de Bagnas, la mission fédératrice de Bagnas, parce que l'Union africaine Bagnas déjà était déjà euh, avait jeté les bases d'abord parce que dans les pays africains pays bogiste par exemple tu trouves là-bas des disciples de Bagnas. donc cette mission c'est bu la fait juste daf ko régénérer da ko recultiver da ko encore une fois renouveler la mission de Bagnès mu doon def des années. Mhm. donc tey loolu c' est extraordinaire comme je l' ai toujours. jërëjëf euh, Cheikhou Cheikhou Diallo noo jàngatee li nga xamante ni moom mooy mission xalifa bi mu def fukki fan ak juróom gars yi teg seen arme ci kaw suuf. loolu dañ koy dañ koy rafetlu d' abord parce que c' est pas une chose aisée. loolu lu yomb mais souvent mu dem dafa bëri ay taalibe bàyyi.

parce qu'ils étaient dans le vrai dans la réalité ils étaient avec avec le Dieu te dañ ko jege woon te yàlla nee na man soo soo ma nekkalee su yàggee nga may nekk nekkul su yàggee dama lay nekk ma lay nekk nga may nekk te tollu woon nañ si yàlla foo xam ne nii yàlla su leen fayee rek loolu c'est éternel loolu du jeex mission bi xam ne tey bàyyi moom la fi sampoo mu nekk ay base yu solide parce que yàlla rek moo ko taxawal loolu mënu daam fondement yooyu nag mooy répercuté au niveau international parce que Baye c'est international boo génnee sax day gën a xam-xam day dayoo moom mooy mooy kan su gis nga ni ñoom ñoom déjà xaw xaw la dañ day wane yow importance. mais Khalifa bi ñoom liggéey aujourd'hui ça ça non c'est c'est autre chose. Mm. là c'est apprécié parce que Union africaine wax nañ si. Nations Unies wax nañ ci tey moom xalif boobu noonu tey lu demee foofu ñoom ñu taxaw dans les milieux des champs de bataille ñu teg seen arme di toog pour honorer cette personne.

Mm-hmm. yàlla na yàlla xare leen na seen waajur yàlla may leen dëgg raay mel loo xam ne dafay toog di wax état tamit mu jël responsabilité bu hôpitaux Sénégal yëpp mu dafa lu mu a daf mais suñ waxee Tiwaawan dañuy wax la xalif de Tiwaawan message bu mu fa lancé ba ne yërmande sax na dem si li nga xamante ni moom enquête bi foofu njaboot gi yëpp président dem fa noo jàngatee tamit tax taxawaay bi xalif de Tiwaawan xam nga comme ni ñu ko waxee nii léegi-léegi mm-hmm. eh, la foi est très important mm-hmm. euh, ci nit Euh, am na loo xamante ne euh, maanaam euh, sa fois fu muy egg ak nit kii maanaam kooku rek mooy mun a tax maanaam lu bëgg am maanaam li nga war a def nga def ko mais c'est pas la politique wala autre chose. mais lii fin société la. waalis bi taxaw uuf ñi nga xamante ni yëpp ñàkk nañ ci seen doom. mais oo ci état ba pare ne leen ni ngeen ànd ak ñi dawal si yërmande. c'est-à-dire c'est un message très important le mot yërmande. absolument mooy lu mu lay wax leen xalifa bi da koo yàgg wax.

dans une société mu am crise tey mu woote la paix y a la stabilité parce que euh, quoi que l'on puisse dire euh, dans nos sociétés surtout celles sénégalaises Khalifa, c'est une voie autorisée. Mhm. C'est pourquoi je me dis souvent, euh, dans certaines décisions, peut-être y don une décision concertée par les Khalifes. Bon, a une mhm. questions

Eh, ku nekk da ngaa am benn cër bi nga jox xalifa diine donc tey ñun dañu doon gane tey ñu jox leen benn part responsable wala benn place boo xamante ni souvent même pourquoi pas créer benn cadre national boo xamante ni bii tey ñoom ñoo koy jiite dans certaines propositions apporte parce que tamit nag la xalif bi fi nekk xale boo mën a def lu muy jiite ay ay ay ay borom xam-xam lay jiite. Mhm. ay borom daraje mhm. ay borom alal. Mhm. donc ñooñu yëpp tey ñun dañ doon bénéficier. loolu jërëjëf ñëwaat si yow bokk na si code de la famille jamono Abdou Diouf mu na kilifa yëpp. mais Cheikhou ñu gis ne tey Tivaouane ba mbir mi xewee Macky Sall ba mu fa demee sax ñi nga xamante ni ñoo am tëj ñoo toog recevoir ko parce que xalif bi dalal na leen fait sociétal boobu Cheikhou noo ko jàngatee. oui parce que xalif yi c'est des c'est des régulateurs sociaux. <coughs> quelles que soient les circonstances problème nous nu mu mën à chaque fois rek ils sont dans le juste milieu cest à c'est pas facile de vivre dans le juste milieu dafa am ñu ko yàlla may cest là nous lu mu métti métti ñoom dañuy mën gérer tempérament Khalil xalil bi rôle boobu la fa def wane ne c'est un régulateur social c'est une personne qui doit transmettre des enseignements mais c'est une personne aussi qui doit convoquer aussi la grandeur wax nit ne gannaaw li am amna fii ak fii lañ war régler pour les états d'âme mm. parce que loolu mooy tax paix am li am am les onze bébés dañ leen di ñaanal parce que mm. c'est des innocents aussi mm-hmm. mais peut-être dogal la tamit suñu borom parce que personne n'aurait souhaité loolu am kon loolu bu amee tamit xale bi da leen di da leen di apaiser da leen di delluwaat suñu borom wala ne lii yàlla moo ko def après nag ce que l'état doit faire dina ko si def te yaakaar naa ne déjà le président est en train de le faire parce qu'il a limogé le ministre mm-hmm. dina am yoo xam ne ni tey dina nekk ay ay ay décisions yoo xam ne dañ ko fi def lu Moussa doon wax nag je pense bien qu'il est temps. Parce que c'est des voix autorisées. Et je dis bien que ces khalifs-là, ku ci Cheikh Ibrahim Maye mm-hmm. C'est des hauts cadres. Mm-hmm. c'est des personnes. jàng si université àdduna C'est des des personnes des intellectuels avérés. Mm-hmm. il faut que nous les inclure dans les affaires. publiques dans les affaires de l'État, que ça soit au niveau national international parce que leur voix compte. de duñu wax luy déstabiliser réew wala luy yàq réew mais lu koy yokk lu koy rafetal ci lañ nekk kon il faut ñu leen di. jërëjëf si euh, mbokk internet yi su ngeen gisee ñu dugg ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy suñu émission bi dafa tudd la voix du campus ay étudiants ñoom ñoo ko moom te étudiant suñ ko waxee moom mooy sàkkukatu xam-xam kii dem di sàkku xam-xam nag di sàkku di maamu keneen war nga war a xam kat mooy sa maam quoi dañuy sant di gërëm sëñ taxa Mbacké xalif général des Mourides di sant di gërëm ki sëñ su Mansour bu Tivaouane xalif Ndiassane Daaru Salaam ak fépp di sant di gërëm ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Mahi Ibrahim Niass nga xamante ni suba la war a ñëw fi nga xamante ni moom mooy Dakar. di ko tatagal di wax ne carrément su ñuy wax Union africaine su ñuy wax mondialisation papam def si liggéey lu bëri. dafa jël xeetu Afrique yi. mayante leen seen biir ñu sëy jël doomi Sénégal maye ko Nigéria jël doomi Nigéria maye ko Mauritanie c'est-à-dire doom yi suñ jurantee seen biir jàmm dafay am. œuvre boobu moom la àggali si àdduna bi yëpp ñoo ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax a baax te ñun dañuy faral di wax ne Cheikh Ibrahima Niass papaam moom mooy ki nga xamante ni mooy continuité ay maamam ak ay baayam Cheikh Ahmad Bamba daal fu Ahmad Fouta El Hadj Mas ñoom ñoo bokk benn famille bu ñuy wax le soufisme kenn mënul leen tàggalee si la ñuy duggee ci li nga xamante ni moom mooy suñ thème di wax ne carrément les politiques publiques de l'État ban jeexital la am ci askan wi ci côté santé Moussa noo ko jàngatee yow mu dëkk Fouta Oui, mon frère, ça, ça me fait vraiment plaisir de ce domaine parce mm-hmm. que euh, c'est une actualité mm-hmm. dans le pays. Mm-hmm. Ce domaine c'est un domaine très important dans une société, la santé. Donc, la euh, santé publique, c'est ce que l'État a fait euh, euh, ban importance wala apport la indi société bi. ban apport parce que c'est gisee suñ plateau médical. so soo ñëwee fac médecine. presque Afrique foofu yëpp la jàngee. absolument mais ñun suñ plateau médical fan la ag ak suñ. wér la gis nga euh, je peux dire que l'état état. Mm-hmm. def na ay efforts ci walu santé. mais il y a un problème de gestion. dans tous les manam ci domaine yëpp. Mm-hmm. gestion bi moo des quoi maanaam tamit. Euh, il faut nous xoolaat président même bu jëlee santé bi santé bo euh, euh euh ci biir santé bi tabax na fi ay hôpital yu bari mm-hmm. yokk na ko fii nii. Mm-hmm. donc euh, lu Abdoulaye Wade defoon ci benen régime bi mom ñëw na augmenter loolu noonu yàlla def euh, corona bo xamante moy maladie bo xamante bo amul santé bu baax do ci muccu ñëw fekk ñu fii nii ñu xool taxaway buñ ci taxawé jox ñu benn exemple. parce que man dama japp né corona bi bu mu ñëwee mm-hmm. alerte lañu ñu suñu pays. maanaam alerte boo xamante ne pays bu nekk war na mun a delloowaat xelam ci wàllu santé parce que santé moo yor lépp boo préparé wul si sa santé ëllëg ëllëg dara benn feebar. mais santé dégg nañ si coow lu bëri seen dernier. waaw waaw mooy mooy lu ma la wax dafa doon une question humaine.

yo xamantene nga gis ki dafa sonn au lieu ñoom ñu jóg dem jubli ci ñom directement jël leen en charge protéger leen ba mu leen sauver duñ ko def lolu nak gestion bi nak ça ça vient manam du haut ci kaw la jógee ba ci souf bo xolé le président a pris la décision. mu mu mu limoger le ministre de l' enseignement. jërëjëf parce que am na lu tax. ok Moussa après Macky Sall limoger na ki nga xamante ni moom mooy ministre bu fi nekkoon. mais est ce que ministre ñom ay chef titre tutelle dong leen. nekkul ñoom ñooy personnel bi nga xamante ni ñoom ñooy wax di faj mais dinaa ñëwaat ñëwaat si yow Moussa ñu gis ne comportement bi nga xamante ni kii faj moom la war a yor comportement gardien à comportement ba nous finit ñuy malade bi. Mhm. comportement tey noo ko par rapport à ak crise bu am ci santé euh, merci beaucoup. Mhm. man euh, le secteur de la santé. Mhm. madame suñ koy analyser. comme politique publique lañ wax. dañ koy analysé selon les documents bu état proposé. à la population. Euh, tey comme l'état c'est une continuité. dañ gis y' a un certain nombre quand même de politiques publiques qui ont été voilà nous, euh, nous, mhm. pour la population pour le plan Sésame mhm. euh, le document euh, national pour la santé communautaire comme mhm. une mhm. mhm. tout ça ce sont des politiques publiques de l'État de l'État a été pour la population maintenant ces politiques publiques euh, ce sont euh, c'est d'abord une conception c'est au niveau national mais faisable quoi voilà hein. déjà c'est une conception quoi au niveau national mais maintenant pour nga opérationnaliser ça demande un coût malheureusement pour me dire sa question les gens pensent souvent le coût c'est le coût financier C'est dafa am solo euh, maanaam boo seetloo politique yi yëpp bu demee ba à la fin gars yi dañuy rocceeku da ngay gis gars yi euh, naan doxatul doxal lu tax parce que man gis naa politique publique santé la santé elle est avant tout sociale. Mhm. parce que c'est n'est pas pour rien ñu euh, politique nu mu tudd accès aux services sociaux de base santé da cee mhm. donc la santé elle est avant tout sociale. Mhm. donc gis naa man ci politique publique état yi nii au delà des moyens financiers yu jël maanaam les travailleurs sociaux mhm. dañ ci am liguey bu am solo mhm. liguey bobu non moy la question de l'accueil mhm. et d'orientation et des conseils bi ngay wax au niveau euh, du secteur de la santé bi nga xamante na fa problème tay ku jël les travailleurs sociaux tey boo leen jëloon là c'est le domaine de compétence tey mën ñëw apporter au client une médiation entre les clients et par exemple les prendre comme euh, les, les, infirmiers, les infirmiers, les docteurs, en quelque sorte quoi dans les hôpitaux ou bien même même dans la prise en charge par exemple pendant 16 ans c'était pour les vieux plus de 100 ans mais il y a des petits biir boo liiree des enquêtes souvent les vieux dañuy dem ba parce qu'il y a une un problème de communication mhm. entre nous elle est, voilà, elle est docteur les infirmiers. Donc tout ça, il y, a la question d'accueil, mhm. d'information. de ah, la de a Question Parce qu'il y a des gens qui sont formés pour ça, des travailleurs sociaux. Il y a quand même uniquement pour ces questions de médiation, mhm. ces questions d'orientation, ces questions de santé. Donc il est grand temps que l'État, à travers ses, politiques publiques, ses programmes nationaux, inclure les, ça, ça va leur permettre d'opérationnaliser tous les, problèmes, euh, tous les euh, toutes les politiques. Parce que non seulement il faut, l'autre, je répète, les coûts, ce n'est pas uniquement d'ordre financier, mais c'est aussi capital humain. Le capital humain est très important pour toutes les politiques publiques de question Je vais aux vous.

C'est-à-dire, nous problème équipement wala ni nous avons des hôpitaux et des hôpitaux bien mais problème capital humain voilà OK OK le problème c'est le capital humain mhm. pour moi le bon médecin c'est celui d'abord qui a qui a la morale moi qui a bien mal absolument gis nga ni dina fébar mieux. ñew ni koy accueillir wala ni koy xolé ça le soulager absolument parce que le malade il a besoin de soutien moral d'abord mhm. il a besoin d'affection d'abord balangoy ngoy les les les les auto soins xool yaramam li dafa war a am benn comportement boo koy woon moom moom mu xaw a gis ne am na benn soutien am na benn assistance mais tey da ngay dem si hôpitaux yi pour acheter un ticket rang bi day gudd da ngay rang te bëri ni ñuy wax ak yow sax <laughs> du neex malade bi mënul ñëw nga koy gëdd wala nga koy yuuxu et loolu je pense bien que c'est c'est de l'humanisme loolu c'est de l'humanisme c'est des valeurs <laughs> léegi formation bi nga xam ne tey médecins yi ñu ngi koy def pour man

Si on voit des personnes 890 millions, mais les pauvres pauvres cotisent, les riches pauvres cotisent pour les pauvres. Qu'est-ce que pour nous mieux cotiser Nañ leen di jël ci seen xaalis ko yóbbu ci hôpitaux yi ñuy jënd ordonnance yi nga xam ne ñu ngi feebar te mënuñ jënd faj mënuñ am ordonnance. Mm-hmm. fii da ngay dem amoo ticket 5000 francs boo jënd dañ lay sànni kenn du la xool. Mm-hmm. boo amul ticket kenn du la xool ba lay yóbbu ay soins primaires. il te demande d'abord de payer pour ñoom ñu xool. mais est-ce normal en est-ce normal en 2022. est-ce normal dans le monde où nous sommes. Mm-hmm. nga xam ne.

xale ben xale ñu ne dee na te ñu bàyyi gis nga docteur bi génn na sax ñu ne waji ji arrêté leen ko 6 mois sur si allez mais même usage bi soo ko maanaam constat bi c'est partout le constat ce qu'on a constaté c'est hmm. partout manam négligence bi ngay wax ni moy lu gaay di wax à tout moment mooy indi problème bi à tout moment et le manque de formation des personnels donc moy li la wax ni rek gestion bi manam un directeur wala chef euh, médecin wala ko bu wura a xool ay personnel am dugg bureau par bureau maanaam euh, lii section par section xool ndax ñu ngi def seen liggéey duñ ko def da ngay ñëw benn hôpital nga gis ay médecin jigéen toog nii di waxtaan di débat xam nga malade mu ngi ne toog au lieu ñu jóg ci malade bi wax ko duñ ko def fii la ñuy toog nag seen portable di manipuler di waxtaan malade bi di wax ak ñoom duñ ko faale loolu am na fii am na day mais attends da nga koy gis c'est très important dafa am lu mu la bëgg a à lu de voir cette négligence qui wax de dafa am solo top mais est-ce que ce n'est pas le comportement du Sénégalais parce que ce n'est pas ci petit yar ce comme vous ñu wax Cheikh Ahmadou Bamba enseignement école l'école responsabilité mais si famille aussi responsabilité parce que nous, ku les da nga lutter contre ces négligences ba les ne fa il di a un jaamu ci bon man euh, situation négligence Mm-hmm. on vais analyser sous deux angles. Mm-hmm. D'abord, au niveau au niveau stratégique mais au niveau de l'État. Mm-hmm. parce que d'abord, l'État aussi. est garant très important. L'État aussi est garant de la surveillance de ce qui se passe. dans les services qu'il administre. parce que moi, on comprend euh, ce qui se passe euh, dans le monde ou dans le secteur sanitaire Il euh, y' a y' a trop de laisser aller de laisser faire de temps en temps il n'y a pas de surveillance accrue il y a trop de de laisser faire comme Moussa mi c'est-à-dire que ci nek liguey bi ngay liguey am liberté l'État ne contrôle pas. Mm-hmm. dans les secteurs publics l'État doit avoir des politiques d'accompagnement des politiques de surveillance. Mm-hmm. parce que nit ñi nga ñu affecté la Kër Baba nga nek fa di liguey jéem créer ben clinique et vous kenn kenn yow public la sa clinique pour nga ko a xarmat mm. te pour état d' peut être wax ne peut être les conditions ne sont pas favorables mais l'état peut faire des politiques yoo xam ils seront dans de très bonnes conditions. Mm. muy muy santé bi éducation professeurs grève a politique état la. état mooy jóg ne lii dama koy jeexal pour ma jeexal ko nag dañuy toog autour d'une parce que tous les problèmes se règlent autour d'une table ñu toog waxtaan ñoom dinañu wax ñoom seen soxla l' état va compte après l' état proposer ñu tënk ci ay kàddu yoo xam ne moom la ñuy def parce que centre bi lu mu nekk di def nii parce que c'est des

mu wax la mais ces faits là yow faits yooyu nga xamante ni léegi manque de sécurité. Uh-huh. te état tamit mënta jël sénégalais bu nekk mu jox la police mu taxaw sa côté. mënta jël sénégalais bu nekk mu jox la gendarme nga taxaw sa côté. kon am na ci côté sécurité loo xamante ni comme lu gars yi di wax un comportement humain la war a doon. te comportement bi boobu noonu famille moo la ko war a jox. Uh-huh. mais ces agressions yoo xamante ni une peine te téeméer rey ko nii uh-huh. carrément nii rek mu xëy dee nii. yow noo jàngatee loolu. Euh, kii Ali Thiam je pense que loolu. Euh, c'est un problème bon maintenant état bi mok parce que euh, le problème que vous avez souligné problème d'agression sur la jeunesse euh, on est dans une situation tellement compliquée ici au Sénégal parce que nous sommes un pays de 16 millions 17 millions habitants dont plus de 80% sont des jeunes et cette jeunesse-là est désespérée actuellement il faut occuper cette jeunesse actuellement parce que si vous regardez bien cette jeunesse-là dañoo dem ba xamatuñu lan la ñu war a def ak fu ñu war a teg seen tànk c'est très difficile boo xoolee par exemple ci lamb ji lu fa nekkoon jeunes yu bëri yu amoon yaakaar ci lamb ji amatuñu yaakaar ci lamb ji fan la ñu nekk actuellement waxuma la les étudiants waxuma la autre chose donc cette jeunesse qui est dans la rue et qui ne savent même pas quoi faire même l'agression à travers Fatou Kiné mm-hmm. c'est pas un agresseur qui l'a agressé mm-hmm. c'est quelqu'un koo xamante ne ku ku licite koo xamante ni mu ngi nekkoon ci liggéeyam ak lépp mais lan moo ko poussé pour mu def loolu tey jii nii c'est c'est tellement compliqué est-ce que ñàkk Moussa ce que ñàkk loon est-ce que ñàkk loon ngénte Moussa war na tax nga rey humainement non c'est pas une question la ñàkk ngénte il a pas de raison c'est jabar na non merci question c'est merci beaucoup une perte humaine est Sénégal on peut pas par exemple on peut pas justifier. Hmm. Euh, par la tuerie quoi. non non, moi quoi, wax moom en personne. waaw ah, voilà moom moo c'est ça c'est ça ne peut pas justifier l'acte qu'il a. Hmm. a causé moi day gétt parce que il faut nous revenir d'abord sur la société de manière générale. Hmm. quelle société nous sommes entrés voilà ou bien nous sommes entrés même d'élever c'est une société qui n'est plus la même société bu ñuy dund 2022 ce n'est plus la société d'hier mais voilà des années 90 wala nangam parce que par exemple nous avons une société qui s'occidentalise mhm. maanaam tey société ñu ngi roy loo xamante ñun on n'est pas à ce niveau de vie la diffusion des valeurs occidentales nous nit ñi bu ko récupérer jeunesse bi récupérer alors que nous n'avons pas le pouvoir d'achat ou bien nous n'avons pas le moyen de le faire ça a souvent basculé mhm. euh, une partie euh, cette jeunesse ou bien voilà la population vers cette agressivité. Mm-hmm. D'autre part euh, c'est euh, une population sénégalaise aussi jeune que ça c'est une population qui qui n'est pas occupée. Mm-hmm. Tay nga bëgg dund yenn dund yi dara et souvent c'est faut que la politique publique de l'État fasse fa lañ ma je me suis dit que les les financements qu'on fait. Mm-hmm. ne ça ne peut pas être une question pour des, intellectuels, des diplômés. Ça doit, on, doit, on doit revoir les cibles. Les cibles, c'est qui Est-ce qu'il ne faut pas rééduquer cette jeunesse Est-ce qu'il ne faut pas créer d'autres centres qui vont accueillir cette jeunesse Parce que cette jeunesse-là, qui n'est pas diplômée, elle se voit souvent exclue des politiques de l'État. Elle est à l'écart. Elle ne peut pas bénéficier de financement. Donc, comment récupérer cette jeunesse qui aujourd'hui se sent exclue

beaucoup de parents ont démissionné sur l'éducation de leurs enfants. Bon, le troisième pilier que indi l'éducation de base tey bi nga inclure Cet homme, Et ces que bu ñu euh, à bas âge boo à l'école, école nga dugalul à métier c'est-à-dire responsabilité parentale Vos parents bi dire a jël ci depuis le début boobu la parents ont démissionné ça aussi il faut le dire et d'autres encore d'autres piliers cette jeunesse là elle parfois dañuy rêve tamit day gis koo xamante day toog fii du nangoo def yenn métiers yi donc y' a beaucoup de facteurs yoo xamante ne ñu ngi intervenir sur cette voilà sur cette société démunie. ak jërëjëf question la taal ñoom question la seexu téere yu bëri yi tey seexu suñ ko seetaanee mu jàll ban ëllëg la Sénégal di am. merci euh, c'est c'est c'est un sujet vraiment qui fait les maux de la société. merci beaucoup MOAUX. Euh, je pense bien que aujourd'hui la cause principale de ces actes ignobles c'est la pauvreté. Oui, oui, oui. Quand on est pauvre, mhm. on n'a pas la voix dans notre pays. Quand on est pauvre, on est exclu. Quand on est pauvre, on est en marge de la société. Mhm. Et quand l'homme est marginalisé, il devient bête, il devient féroce. L'homme dans sa grandeur, c'est un animal et une personne confondue. C'est-à-dire, il y a une toxicité. Mais c'est-à-dire, Benen bi, mu ngi ci humanisme bi mooy dominer si moom ba muy jëf nga nangu ne kii nit la mais loolu heure bu animosité bi ëppee doole si moom il va agir comme une bête féroce léegi nag loolu lu koy indi mooy lan ñàkk am soxla mënoo ko faj am yaay nga am baay nga dund si kër muy métti ngeen xëy bi ngeen man a lekki añ bi assuré wuñ ko nga nekk waxambaane nga gis bët yu say yaay di xool pression sociale buñ lay teg Euh. mooy tax nit ki def lu mu dul def moo tax là aussi les responsabilités sont partagées mm-hmm. c'est compliqué mm-hmm. nit nga toll si war a tekki te tekki woo nga war a lijjanti problème yi famille mën a ko lijjanti nga war a dog ay bu mu gàcce te mënuloo ko nga nekk société boobu bët yu ñu lay xool nga xam ne yaa ngi physiquement tu existe mais boo xoolee sur le plan poste yi nga war a occupé place bi nga war a société bi qui est exclu et c'est dangereux mm-hmm. loolu nag li koy régler voilà une solution par rapport à ça l'état l'état am ci wal wàll fara parents am nañ si wàll nit ki si boppam jeune ci bopam boppam am nañ si wàll gis nga nit do tok rek di xaar yalla xaar yalla yeb dalay fekk ci yoon bi gis nga lu bon Dieu du xëy rek ne Ali am. <laughs> Ali day dem wuti ko yalla jaarale ko ci ay loxo ba mu jot ci yow. Mm-hmm. ki lu mu doon wax ni ce que le Sénégalais refuse de faire loolu lay Guinée bi di def di si tabax ay kër. te mosoo gis Guinée sa exactement loolu lay Guinée bi di def di si tabax ay kër dëkkam loolu lay def di si am ay jabaram di si yore ki Guinée léegi nag sénégalais boobu noonu du nangoo def liggéey boobu parce que après les élites on passe à l'administration ñëpp mënuñ liggéey si bureau il faut favoriser l'entrepreneuriat pour cela c'est une bonne politique de l'état d'abord état mooy bon gars yi xool les cibles

Abdou Diouf defoon na ko fi à l'époque moy maîtrisant bi joxoon les boulangers mais sénégalais mo tàmm ñu baal ma ak quoi mais ñu bëri tàmmuñ liggéey c'est-à-dire liggéey boobu mooy maa ngi xëy rek dem dem xey tay so ñëwee ba ci àll bi Saloum da ngay gis paray comme ni ma ko waxee ku demul école doon xalé yóbbu ne la ci dara ji après ñu yóbbu la nga dem jàngi nekk c'est-à-dire nga am culture pour dem je travaille et tu dois travailler Cheikh wax non léegi carrément évoquer cette politique d'emploi est-ce que tay uh-huh. état mo ngi daf mo ngi daf tout lu muy def des na. Mhm. mais le Sénégalais bi si boppam war na mën a pour Damal bopom mais est-ce que liggéey war nga toog rek xaar état laa war a xaar mu may jox liggéey. donc euh, tuuti rek moo appuyer. ci loolu aussi c'est une question de waaw Euh, euh, c'est une question de euh, maanaam de valeur. Mhm. il faut que nous retournions sur nos valeurs de culture et culture changer le comportement et les mentalités actuellement ci moment où lañ toll parce que Senghor waxoon nag que la culture est le début et la fin du développement donc instant sang, nous ñu ngi dund ci moment tant que avons une valeur de culture maintenant, pour nous développer wala avancer du normal la question de financement moi je dis que ces financements ne vont jamais régler le problème des jeunes de l'emploi des jeunes non non parce que des financements qui n'ont pas de formation souvent toujours e- échoué. Mm-hmm. Beaucoup de financements ont échoué. parce que non pas parce que da ngay dem nga naat nit benn jeune indil ma finance sa projet mu dem dem ci benn nit créer ko benn projet mu indi jox ko financer ko xaalis bu bëri te amu ci benn xam-xam ci financement Si nag bu demee nan lay def ba loolu réussir day yàqu day échouer donc c'est pas ça l'État est là man waxoon naa au niveau du Fouta par exemple da ngay xool si zone yi nek ci Sénégal yépp def nañ ko euh, euh, à travers l'université université El Ibrahima Niass. bu Kaolack bu Kaolack. Mhm. dañ fa créer ay filières yo xamante ne allant le centre de ligue parce que Saloum agriculture lañu xam ak leneen. Mhm. nga forme fofu ay jeunes pourquoi pas au niveau du foot créer foofu ay entreprise ay ay ay université allant dans le centre de l'agriculture et de l'élevage nga xamante ne euh, zone bobu non si loolu lañuy ñuy évoluer loolu mooy seen secteur d'activité activité. tu vas former des jeunes étudiants ingénieur en agriculture et élevage nous da nga leen di jox financement ñu des biir Fuuta créer ay entreprise ay société mhm. loolu mo mëna a développer. l'étude de sa réalité de de de sa territoire. Ah, ah, absolument merci beaucoup. loolu mun na partout hein? cheikh moy wax sànq mu ne si tu es pauvre tu es exclu. la pauvreté tay doon mo bo xamanteni mo bu rëy société motax ñi def sulu mais comment lutter contre ce phénomène voilà merci euh, monsieur al et Cheikh Diallo euh, la question de pauvreté ça doit être une question de préoccupation nationale ça doit être au cœur euh, des politiques publiques de l'État mhm. ça doit être aussi une priorité absolue de l'État mais aussi des collectivités territoriales ça c'est très bien tu vois pour lutter contre la pauvreté il ne manque pas d'initiative, mais c'est l'application qui pose problème. La faisabilité. La faisabilité. Même la faisabilité, s'il y a de la volonté, on peut y arriver. Mhm. Euh, le problème, moi, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Ou bien, où est-ce qu'on va le faire la question de la pauvreté, mon euh, de la pauvreté, sans se replier vers l'agriculture. Mais mhm. Maintenant, de quelle agriculture Ou bien, quel secteur faut-il voilà, booster Depuis les années 90, il y a le projet de revalorisation des valeurs fossiles du Sénégal. Parce qu'il y a des études qui ont montré que chaque année, plus de 10 milliards de mètres cubes flottent euh, flot Sénégal d'accord jetés vers la mer. Et mm-hmm. pourtant, on pourrait connecter ces, euh, euh, voilà, ces milliards d'eau qui sont jetés dans la mer vers d'autres voies fossiles. On va exploiter. Bon, de fait, agriculture, mais il y a ce qu'on appelle une, une société qui se développe, doit aussi transformer ce qu'elle produit. Mm-hmm. Moi, la transformation.

Hein? Maintenant, tu, tu peux faire euh, de l'aliment pour la bétail. Donc, tout ça, tu augmentes la scène de valeur. Hum. Et cette scène de valeur, combien de personnes Ça va créer combien d'emplois Ça va créer combien de recettes Une société qui produit doit transformer. Et cette, non, hum, hum. Et cette transformation va produire non seulement des recettes, mais aussi va produire de l'emploi et va fixer la population.

mën a citer exemple yu bëri. parce que euh, day faral di am foofu noor bu jeexee nii gars yi dañuy jënd gerte xottu bi di ko yóbbu si machine yi di ko xolli jigéen ñi di ko bees ñu mën si cité ku ci mel ni Thiam chinois léegi dégg naa mu ngi mu ngi Kër Madiabel fa la am passe. Mhm. il employé des milliers de personnes. ñu mhm. ñi di si doon gagné xaalis bu bëri. Mhm. ma gëm ne euh, c'est ça la bonne politique il faut ñu soutenir nit ñooñu noonu.

mu xamul dara si si si si poulailler yi. bu doxee nga jox ko benn deux ans mu jënd ñaari poussin ñetti poussin yóbbu njóobeen ñaari dee benn bi mooy des <laughs> nga ne kooku na si am bénéfice. mënul nekk parce am na ñoo xam ne tey loolu lañ jàng boo demee mm-hmm. véto c'est des vétérinaires ils ont appris loolu lañ xam. état n'a qu'à recruter ces gens là. Mm-hmm. financer jeunes ku bëgg liggéey si liggéey boobu nga ànd ak kooku. Mm-hmm. mu wóor la ni ngeen fiy def. état de planning bi fi fayee lépp ngeen liggéey production. pour yow yaa ngi ñëw question de réorientation. ou seen cette ok jërëjëf jërëjëf Moussa bëgg nañ wax ñun ñëpp mais question de temps mo ñu dab. Hmm. mais dinañ defal yeneen jotaay yo xamante ni carrément pour waxtaan naan la ci li nga xamante ni moom question réew mi. Oh. Mara ñu ngi lay wax ci voix du campus nga tagoto oui vraiment c'est une très bonne initiative voix du campus ça donnera l'opportunité à tous les étudiants les leaders Madame de pouvoir s'exprimer vraiment dama faire l'autre.

Mhm. Euh, le présentateur mhm. le Thiam di le aussi de mhm. remercier aussi euh, le fait que nga compte une personne invité nous. peut-être à mon yeneen personnes yu gën a pertinent personne non c'est ça macha allah macha heureusement voilà vous avez compté sur nous. absolument vous remercier nous sommes très reconnaissants. Euh, l'autre chose émission bi yàgg nañ di ko suivre. c' est de la qualité y' a y' a la confrontation. te loolu mooy génne idée. on oh, vous demande de poursuivre. Vraiment, vous êtes sur la bonne voie. Merci. Mais vous, avez allez quand même me donner la possibilité de nous, ça m'embok qui va <laughs> RTS, le nationale de travail socio spécialisé, euh. également. Ok. Tey ñoom dañ leen un en partenariat pour mener a voilà ñu comme mm-hmm. ça il y a une ñu. Mm-hmm. Si yenn nous yi a def. Mm-hmm. Euh, on a un plan d'action annuel. pour nous war dérouler. et peut-être je vais en parler avec le président du FIU moi je suis le secrétaire général on a aussi d'autres activités beaucoup. Euh, n'est école sous tutelle du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Mhm. Donc, des euh, les médias en tant que euh, TV mhm. voilà Ben chaîne am solo émission aussi les étudiants à ce que. les débats. parce mhm. que le débat est constructif. Mhm. le débat ça ouvre des perspectives mhm. et c'est intéressant donc nous aussi nous, tous les amis qui qui vont suivre l'émission et di bonne continuation euh, di aussi jàmm ci parce que mhm. jàmm ci ñun Sénégal jàmm lañ xam jàmm lañ mës depuis les temps voilà jàmm rek lañ xam Baye Niass jàmm la woote euh, Sëñ Touba jàmm la woote El la

Ah. Mhm. je suis très très content. Mhm. surtout de recevoir mon ami Moussa Diallo. mon fidèle ami. le mom mbekté rek. Mara on était très contents. Mhm. parce ah, c'est pas du tout facile. vous avez laissé vos préoccupations pour être là. Mhm. et nous apprécions vraiment euh, le débat était riche. mais nous, euh, je lance un appel solennel hein, à mhm. l'ensemble de la jeunesse du Sénégal. de toujours garder l'espoir. tant qu'il y a la vérité il y a l'espoir. Cela dit, qu'il il faut toujours être ancré dans nos valeurs anciennes. Mhm. parce que bu ñu bu ñu bàyyee li si maam yi defoon démb rek. Mhm. dugg si yeneen vie boo xam ne nii vie bu bees la. liñ si mhm. ñu bàyyi xel euh, retour aux sources. il faut ñu mhm. bàyyi ñu bàyyi gannaaw. Mhm. mais il faut ñu bàyyi xel tamit ne chacun ku ci nekk li nga a am di ko am. jërëjëf merci beaucoup jërëjëf sant ak ngërëm ñeel ne ñi nga xamante ni carrément yéen ñuy seetaan di leen wax yéen ñëpp ngeen ñëw abonné di commenter li ñuy def di ko partagé dinañu kontaan loo bu baax a baax a baax di sant di gërëm suñu invité ñu fi amoon tey Mara di sant di gërëm ki nga xamante moom mooy Moussa Diallo ngeen bàyyi seen temps ñëw fi te ëllëg tamit di leen ànd ànd ak yéen si débat yu bëri di sant di gërëm suñ chroniqueur boo xamante ni bañ commencé ba léegi moom si liggéey bi di si jàpp Seexu Diallo ñoo ngi lay remercier bu baax di sant di gërëm notre jeune frère Jawar nga xamante ni moo ngi dëkk ba fi nga xamante ni moom mooy Thiagne moo ngi dëkk ngaay ñëw di jàpp si liggéey bu baax a baax a baax di sax di gërëm suñ technicien bi nga xamante ni moom mooy laxaat nga xamante ni chaque jour da ngay woo doo ko jot si liggéey Mader TV la nekk ñoo ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax a baax di waxaat képp kii suñ mbokku taalibe Cheikh Ibrahima suba la xalifa bi di ñëw à partir de 15 heures lay agsi Dakar suñu paree dina dem Kaolack à partir de 17 heures ñoo leen di wax yéen ñëpp ngeen ñëw tertu ko di oo waa ONU hmm. unité africaine suñ xalif généraux ñu def leen ay ambassadeur international de la paix quoi parce que ñoom mën neen doxal àdduna bi fépp foo mënti dem seen maam yi ak seen bàyyi am na lu ñu fa jeexintal wasalaamaaleykum wa rahmatullah et à très bientôt si yeneen numéro yu neex a neex a neex